yàggal ko fi lool te wér yokk vraiment en fait xalaatam am na xalaat am na yéene si ñun donc ñun ànd amul luñ dul ñaanal ko parce que réussite moom su koy wax moom réussite na ba pare la macha allah dañ koy ñaanal yàlla bu ko cet jiitu waaw lépp lu mu sumb yàlla na ko yàlla mottali si ak sagom waaw si HLM moom vraiment ñun ñu fi nekkoon depuis dix ans quinze ans xam nañ fu mu jógee ak fu mu si baaxam ñaari at wala ñett at donc loolu yëpp na ñu ngi ko koy sante di ko ko gërëmee donc parce que suñu service tolloon na fenn fi nga xam ne fi képp ku fi nekk nekk fi vingt ans trente ans ci situation yi ñu doon dund relevé de défi bi moom relevé nga ko te itam ñii nga àndal ni muy say collaborateurs yi ku ci nekk la nga ko war a jox jox nga ko nga ne man sàppoo laa rek maanaam chef d'équipe laa rek ku ci nekk defal defal lii mais da leen jox moyen nécessaire pour ñu mën koo def ñu fi daje di souhaiter DG joyeux anniversaire vraiment ñun dañoo kontaan amuñu sa fay parce que HLM tey ku xool fi mu jóge woon ak fi mu dal da ngay xamante ni am na changement yu bëri ñu sonnoon torop nag feuille sax dañ ko fi doon jënd man sax jënd naa fi feuille vraiment ak yeneen agent ak yeneen agent mais tey ñu gis ni HLM am na benn changement boo xamante ni comme ni nga ko waxee woon ku nekk bëgg na fi liggéey tey vraiment man sama kontaante mooy léegi da liggéey ak xel mu dal mhm. parce que tey dossier bu ñëw da nga daan toog quinze jours wala lu ko ëpp di woote jàppale ma fii ca mais tey ku tey ñëw signé da ngay xam ni deux jours bu ko abee sa dossier wàcc bon ngay liggéey à l'aise mhm. ngay expliquer client yi si accueil bi tey lu si mel ni euh, euh, bambiloox nga ni ko fragment de juin mun nga tabax mu amoon ay litige yoo xam ne xoolal Kër Massar 3 client bu ñëwee sa fit day dem nee nga bool ñu ngi lay gërëm di la sant comme li kii wax rek ku la gërëmul du góor gis nga nit tamit ñun li ñuy jox suñu waajur yeeg yëpp ak ñi ñuy jox ñi si mbedd mi fii lañ koy jëlee bon nag ñu lay gërëm di la sant di la ñaanal gudd fan bu ànd ak wér amuñu sa fay yàlla bi am sa fay yàlla na la yàlla fay. bañ fiy dugg see ba tey da suñu xel yi dal ndax ku daan yeewoo sa kër di liggéey si asalam stress nga daan egsee fii bu la client jubee sax nga tiir daw làqatu mais tey jii macha allah tey boo waxee client da nekk à l'aise parce que xam nga li nga koy wax dañ koy jëfe amatuñ li ñuy tiit amatuñ li ñuy ragal déjà daal yow dañ lay bàyyi ak yàlla rek. nga jëlee fonk doomu aadama teg ko ci kaw te ki boo ko fonkee Sani na ko liggéey bi tiit yi dañuy liggéey